Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité dal leen ak jàmm mbokk internet yi topp chaîne chaîne youtube bi di suñu buzz tv Bougane Gueye Dany daal di yëkkee ay kaddu rek di addu gannaaw ba nga xamante ni rek soxna si di Adji Sarr daal dina koy tudd rek ci benn audio bu mu doon amal moom Bougane nag daal dina xam le ni rek moom moom yëkkat masta xam Adji Sarr masta gis Adji Sarr waaye tamit xamu ko ci Adama xamu ko ci Awa ba tax na moom Bougane Gueye Dany bokk na rek ca la muy xamle mooy kii di Adji Sarr moom dafa jàpp ni rek dañu koy utiliser rek ngir maanaam wàllum politique mooy maanaam rek moom aji Sarr dañu koy utiliser rek ngir daal di éliminer benn adversaire politique moom Bougane Gueye Dany ni ki tey ci suba rek ba muy amal jano ak askan wi ci la xamle lu ni mel ba tax na moom daal daa dinay weddi bu baax a baax rek tuuma yi nga xamante ni ñu bëree bëri ñu ngi koy teg ci kawam ba tax na daa dinay xamle ni sax moom moomee Bougane Gueye Dany masuta gis soxna si nga xamante ni moom mooy aji Sarr te jàpp na ni rek Adji Sarr xam yi dañ koy utiliser ngir politique. Sunubuzz TV HD ci toute l'actualité.